bi ma jógee rek laa ko war a jógaale loolu moo tax ma defe ko noonu moom laaj ba ma jëkkee wax loolu wax ne mooy suma it xam xam-xam bu mat ngir jaamu suñu boroom xam bu mat ngir matale suñu teewaay ci kaw suuf xam-xam bu mat ngir ñoŋal suñu digganteek askan wi xam-xam bu mat ngir dundal diine lislaam ni mu waree dëgg xam-xam bu mat sëkk ngir nekkin wu ñoŋ ngir askan wi yépp xam-xam bu am njariñ jàngaleem sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xadimu Rasul mi sos yoonu murid dafa dëppook njàngaleem lislaam liggéey ba mel ni dootoo fi jóge jaamu yàlla ba mel ni tey ngay faatu Cheikhul Khadim di royukaay si sàkku xam-xam xam-xam boo xam ne dafa dëppook njàngalem lislaam bal jur muridiya ak bépp xam-xam bu am njariñ juróom-ñeent fukki ak ñeent ginnaaw bu mu làqoo jaar-jaaram bi nga xam ne cëslaayam moo di xam-xam ak jàng ak jàngale day wéy di sax dàkk saa su nekk ñuy wéy di ko yeesal te li koy jëmmal la fës na si diwaanu Touba ba ñëpp teg seen bët di ab jàngukaay bu mag liggéey juróomi fan ci weeru décembre atum 2018 xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou teg xeer wu njëkk ngir liggéeyub jàngukaay bu mag bi nga xam ne moom la ñu complex complexe Cheikh Ahmadou Bamba ngir jàngale ak yar mu amee woon ci ab ndaje bu yaatu lool. boo xam ne mbooleem kilifay diine ak aada woon nañu ko ak njabootuk sëriñ Touba gi yëpp teewaayub gouvernement bi fësal ko ki nekkoon jëwriñ ji yor wàllum biir réew mi Aly Ngouille Ndiaye ak jëwriñ ji yor wàllum njàng mu kawe mi professeur Mary Teuw Niane jubluwaay bi moo di xambu taalub jàng bi nga xam ne tàkk na ci diwaanu Touba muy ab daaru ju matale jumtuwaay yu matale si wàllum njàng wàllum nekkinu dongo yi waaye tamit seen wérgu yaram basi si fi ñu jaamee suñu borom ba si it fu ñu war a mën a gëstoo amul lenn lu ci manqué di daara joo xam ne dina mën a dalal lu toll si téeméeri junni yi ay jàngkat. moo sañoon euh, daara yu njëkk ya euh, la fa nekkoon dana fi dana ñëw fii muy Madinatul Munawwara muy Bagdaad muy Basra muy Koofa. ba ci xaayira loolu mooy daara yu mag yi jëm si xayrawaan daara yu daara yooyu yëpp nag nga xam ne mooy cosaanu lislaam ci ci daara la fa nekkoon ci xam-xam xam-xam cosaanu lislaam dëgg-dëgg moo sañoon nekk lépp dana ñë danañ ko dana dana ñëw fii mu doon liggéey boo xam ne nag bi ko sëriñ bi tàmbalee di ñu ko wax ñëpp dañoo jóg ànd ko ak moom ni ko boroom xam-xam yi defee. mu ne ñu ñu def université boo xam ne eh, de classe mondiale lay doon. bu ñu woon tàmbali leen ñu tàmbali parce que programme yooyu day yoo xam ne programme pare na ba pare non seulement programme yi pare na mais ñu fay jàngal tamit sax profil yi nga xam ni moom lañuy ñuy laaj. muy profil enseignant yi nga xam ne war dugg foofu tamit ak euh, ni ñu ciy tamit lépp def nañ koy lël ba tënk ko ba def ay profil yoo xam ne nii mooy correspondre ak ñi nga xam ne war a jàngale foofu. loolu yëpp sëñ bi prévoir na ko te jox nañu ci ndigal pour ñu doxale ko ni nga xam ne noonu la war a doxee ci Sénégal noonu la war a doxee ci Afrique noonu la war a doxe ci ci àdduna bi yëpp. université lañ bëgg boo xam daal université d'excellence lañu bëgg mu nekk. الله الكريم سيدنا على ارتقاله بفروض وسنن سكرته لأنه خفاخني لوطن به نفع ما خني وغادني إليه بلا أري من بعد ما هذا باب تخلي cheikh ahmadou bamba xadim rasul dafa yaroo ci keppaaru xam-xam xam-xamu diine lislaam bu mu fekk njabootam gépp nekk ci cheikh ahmadou bamba dafa soqi ko ci famille boo xam ne famille xam-xam la famille xam-xam la soqi ko ndax ay maamam ak i maamaatam ba ci waajuram ci diine ak jàng ak jàngale rek ci lañ leen mës a xam moom bi mu feeñee ci àdduna ci waajuram bu ñuy wax sëñ Mor Anta doonoon jàngalekat jàngkat jàngalekat doonoon xaadi di kaadi bu Lat Joor doon diisoog moom ci wàllu diine mën a jàng lool daaraam fees lool kon mu soqi ko ci waajur wu mel noonu muy sëñ Mor Anta a ah, soqi ko ci it waajur wu jigéen woo xam ne ku ne xam na taxawaayam doonoon jigéen bu baax soxna su baax soxna su am diine soxna soo xam ne wattu woon na bi yàlla bi tabaraka wa taala te doon na ko jëfandikoo doon na ko jëfandikoo ci moom soxna Mariama Bousso moomu jaratulaa ci la soqi ko muy waajur wu jigéen ñoom ñëpp nag boo toppee seeni i càllal la dañuy càllal woo ca ay boroomi xam-xam yu magoon ci réew bi ba ca mamma arab kenn ku ci nekk nitu diine nga woon nitu jàng nga woon nitu jàngale nga woon kenn ku ci nekk loolu loolu rek nga liggéey ñaan naa la nga def sama dëkk bu sell bi di Touba mu di dëkkub xam-xam dëkkub jàng ak dëkkub gëstu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ñaan suñu borom si Matlabul Fawzayni Touba di dëkk boo xam ne dañ fiy sàkkoo xam-xam bu ñoŋ. di ñaan goo xam ne yam rekk si kàddu waaye dafa am jëf ju ko taw Touba Cheikh Ahmadou Bamba xam jaral ko mu sàkku jekkoo fu gën a sori ngir xam. tey xamle njàngaleem lislaam bi nga xamee ne soqi koonu foofu nag kon jàng dana ko war a yomb mu tàmbuli jàng alxuraan nañ ko daan defee ci jamono yooyu jàng alxuraan ci eh, maamam ju ñuy wax tafsir Mbàkke Ndumbe nga xam ne mooy najaayi mooy najaayi yaayam mooy najaayi yaayam najaayi soxna soxna jaara tafsir Mbàkke Ndumbe tafsir Mbàkke Ndumbe moo ko jàngal alxuraan ci ni ko sëriñ Mouhamadou Bachir waxee ci menul baax xadim ba mokkal ko man koo bind man koo tajwid ba mu fa jugee mu delluwaat ci waajuram waajuram gën koo rafetalal alxuraan bi loolu jàllee xam-xam bi nga xam ne jàng na ko mi ngi ko jàngee ci najaay boppam ki bokk ak soxna jaara ndey ak baay muy sox sëñ bu soobe sëñ bu soobe bi ñu xam moo ko jàngal xam-xam jàng na ci moom lu baree baree bare ba mu ci jugee mu dem ci eh, doomi doomi ndey wala doomi baay doomi ndey baayam ñu koy wax sàmbatu kulóor ka sëñ sàmbatu kulóor ka doomi nday Maam Mor euh, Anta Sali la moom it jàngal na ko lu bari bam ci jógee mu dem ci euh, Xaadima Jaxate Kala bi ñu xam am na lu bari lu mu jël ci moom ci xam-xami arab ak xam-xam yu jëm ci loolu bam ci jógee mu dem ci naar bu ñuy wax Mouhamad Addaymani Mouhamad Addaymani ab Mauritanien la woon boo xam ne daan jógee Mauritanie di ñëw senegal ak a dem di wàcc Njaañ te Njaañ jege na ak euh, kooku kii Bakke Kajoor Sëñ Tubaa ci itti ju ji muy ñëw ci naar boobu di jël ci moom ay xam-xam yoo xam ne xam yu am solo la te xëy na tasaarawutoon ci réew mi ñooñu daal ci takk ñoo ko jàngal wàllu xam-xamam ba mu géeju ca lool ba àgg ca foo xam ne sori woon na ca lool. ñu bari ci biir loolu jaar nañ ci loxo mën nañ ne ñi ne ci ronom ci ñu mbokkal ñépp moo leen jàngal moo leen tàmbalil wala moo leen wala fu ñu nekk doon jàng moo leen fa yóbbu ku mel ne maam Thierno Birahim rawatina ci njàng moomu nag. barab yi mu ko doon defee barab bi wuute la mën nañoo wax ne fu mu mës a rek la li ko tàmbalee Pataar bu mu ñëwee Mbàkke Kajoor ak bi mam way juróom génnee adduna mu toogub diir woote yoon wi yàggu fa daal di ñëw Mbàkke Bawol gi nga xam ne fi la gane woon adduna foofu bu mu dikkee dafa wëy ci njàngale moomu foofu sax fi la bu am solo boobu nga xam ne mooy Masaalikul Jinaan nga xam ne da caa tënk tasawuf ak euh, li mu wundu foofa it ba tey mi ngi doon jàngale ñëw Mbàkke ñëw Daaru Salaam nga xam ne mooy barab bi mu njëkk a sanc it foofu it daara jafa la nekkoon muy jàngale ak ñi mu am ba jógee Daaru Salaam ñëw sanc Tuubaa it noonu demee ba liggéey bi gën a yaatu nag fekk ñi njëkkoon a waajal ñu ci bari noppi nañ ci la tàmbal nag tasaare daara yi samp ay jàngalekat yoo xam ne ñuy jàngale alxuraanul karim ak ñuy jàngale xam-xam sharia yi ku mel ne sëñ Abdourahmane Lo ni euh, gën a fés ci ñi nga xam ne da leen sampoon yu jàngale alxuraan la ci Touba ci daaru euh, ci Mbàkke Bari ak daarul alimul xabir gi nga xam ne dañ ko sañtoon ngir mu nekk daara ñu andi fi mu andi fi njabootam ak taalibe yi ay góor ak jigéen nga xam ne ak seen ron it ci ron sëñ daam am na ñeneen i kilifa yu fi nekkoon yoo xam ne ak yeneen barab ñu ngi doon jàngale alxuraan waaye sëñ daam xëy na moo ci gën a fés euh, bu dee njàngu xam-xam yi noonu ku mel ne El Hadj Mbacke Bousso moom itam sëñ bi tànnoon ko mu jàngale ndax bi muy dem Mbacke Bari da ko bàyyi woon Touba xam ñi doon jàng ci moom lañ doon jàng li ñu war a lijji mu di ko lijjanti bu dem Mbacke Bari yóbbaale maam Thierno ak Serigne Dame maam Thierno di jàngale xam-xam Serigne Dame di jàngale alxuraan. Cheikhul Khadim radiyallahu anhu itteem yëpp ci addunaam diirub li mu fiy dund lépp ci xam-xam la ko def diirub li fi ne li fi bàyyi ñu gis ko muy tey li leen wër nii tey fi barab bi nu nekk li nu mën a fab loxo teg ca ne lii moo ko def mooy lu mu bind rek lu mu bind rek lañ mën a fab suñu loxo teg ca ne lii moo ko def te muy lu wér te lim bind lépp mi ngi ko teg ci alquran ak sunna bind ngir xamle bind ngir yare ak bind ngir yeete ñu man cee tudd téere yu bëree bëri yoo xam ne bu ci nekk fànn gëm jëm waaye bu ci ne la koy laltaay muy diine ju set wecc diine lislaam kon li ëpp ci ay téeram da ngay mu ne fi tawxid wal fiq wa tasawuf waaye boo xoolee naaju xadaa il xaaj ci ay teggin la ko def masalikul jinaan ci tasawuf la ko def waaye bari na lu mbind loo xam ne ni mu war a tasaaroo sax ba tey des na te jàpp nañ ne ci liggéeyu sëriñ bi dana ci tasaaroo ci fànn yu bëree bari ay laaj yu bëri yuñ ko daa laaj mu di ci andi ay at yu xóot yu jafe yoo xam ne ay boroomi xam-xam ñoo cay gàgg mu gàgganti leen sëriñ bi nag mënees naa wax ne sembam bi gënoon a rëy gannaaw jumaay Tuubaa mooy jàngukaayu xam-xam tàmbale woon na sax di jëndul ay téere ngir waajal jàngukaay boobu mu bëgg defar di ko jëndulu ci réew yu bari yu bokkut yu jege fi ak yu sori da amoon na maktaba boo xam ne loolu rek a taxoon mu def ko am na bum mu defar loon Touba ji ngir denc ko ay am na ko njaareem am na ko Touba waaye waajal na ko waajtaay woo xam ne daana ci waxtaan ak sëñ Mbàkke Buso ak maam Cerno ak boroom xam-xam yëpp wax ne dafa bëgg def tuuba jàngukaay boo xam ne kenn du jéggaanee te xam-xam jii ni Touba nekkee jubluwaay ngir sàkku xam-xam dëppoog loolu li waral sëriñ bi sos ko dëkk bu ñu sos ngir sàkku xam-xam yar day jàngale jàngale mu lalu si diine complexe Cheikh Ahmadul Khadim di aw matt si wowale say ñëw ngir mottali bëggu-bëggub sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba si wàllum njàng ak yar ci dëkk bu sell bi di Touba diggante Cheikh Mouhamadou Moustapha ba si sëriñ Mountakha Bassirou mi liggéey bi sottee si ay loxoom ak mbégte mu ma àndal si ay kàddoom xalif yi fi toogal sëriñ Touba yépp sàmm nañu bëgg-bëgg bi ak jëf yu am solo yi ñu ci def. université bii nag di daara ju mag sëriñ bi da bokk na ci mébét yi yoo xam ne fu ne ci àdduna la nit daa bàyyi ko la nit di bàyyi ko di fa jànge noonu la ko sëriñ bi doon ci jéego yu xam ngeen ne sëriñ Abibu sax woon ngir doon mottali yéene yi sëriñ Tuubaa jooju sëriñ Abibu moo jàngal euh, Cheikh ak sëriñ Souhaïbou sëriñ Cheikh Mbacke doomam sëriñ ñaan yu bari ci kilifa yi. jàngal na leen kon loolu Cheikh Mouhamadou Fadi xam ngeen ne bii ubbee jumaay Tuubaa ji euh, fii Serigne As Jaxate di jàngale yàlla na ko fi yàlla gën a bàyyi doomu Serigne am sudu Jaxate ubbi na fa daara ci biir jumaa ji ba nëgëri ña ngi fay jàng kon loolu lépp dundal yéene jooju nga xam ne Serigne bi na ko ginnaawam itam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo naaloon université bi ba collecté ko ba tàmbali ko ba liggéey ko ba mu sori mu doonoon sombu rëy rëy waaye yàlla def juttoon na àgg ci biiru xilaafam Cheikh Abdoul Khadir Mbacke itam li diggante bi gàtt gàtt Serigne Cheikh mii nga xam ne tey moo fi ab taawam di doomu wax na ma ca làmmiñam ne Cheikh Abdoul Khadir waxoon na ko ne sama yitte ji jiitu de mooy fexe ba àggale université bi kon loolu naan la wu fi yàgg ba mu fi bàyyi ko itam Cheikh Salif Mbacke xam ngeen ne jëloon na lu ma juróom benn téeméer million àggale woon liggéey ba. bay ubbi daari alxaaj ji ba daari majaalis ubbi fa ba ndege ni boo fa dee danga ko fekk jëloon doomam Serigne Moustapha Mbacke Serigne Saliou jiital ko ci teg daara jën ci loxol Serigne Abdoul Ahad Mbacke Serigne Chouaib ak sëriñ Djili Mbacke Cheikh Abdoul Ahad kon loolu mooy histoire bi seen ginnaaw itam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke bu ngeen fàttalikoo waxtaan ba ma njëkk a wax ci turam ca kër Serigne Touba amoon na yéene tabax fi jëleen daara waaye yàlla def xam ngeen yàggu fi ñetti at yu manqué dafi def ginnaaw mi tam euh, Cheikh Sidi Muxtaar ci biiru xilaafam la ma santoon boole ma ak Cheikh Mahmoud Mountakha boobu mu nekkoon jëwriñam ngeen ñu taxawal université bi ñu defar plan yi yëpp ba plan yëpp àgg bañ defar maquette bi ba maa ngi fàttaliku Cheikh Mahmoud Mountakha keroog bis ba ma ko koy jëkk wax daanaka lii nga ma wax de gëmewu ma ko ndax jàpp naa ne que sëriñ bi tëlu ko tëlu te woote université ndax somb mbir yi ne ci kanam muy jumaay Tuubaa ji ak Masaaru Jaan ak kër Sëriñ Tuubaa ci Daaru Manaan ak yeneen somb yi nga xam ne moo ne ci moom waaye nag ndegam yàlla def na xelam ne ci nag man dama ci sant ndax lii moom man la koy dimbale waaye boo ne nag ab cëram moom. alhamdulilah rabbil aalamiin mu am tawféex ju toll ne nag ñu waree tàmbali liggéey ñu fekk li nga xam ne moo doon. mébatum sëriñ bi ci saayir si rek tax taxawaayu liggéey bi eh, li mu mébatoon lépp dafa mel ne kon daara ji rek moo ci desoon moom mu càmma bi tey dafa mel ne li mu mébatoon rek li mu ci saayir si par contre liggéey lislaam dafa mel ne daara ji rek ci moo ci desoon moom la fi bàyyi loolu waxal na ko boppam junj na ko itam ci baatin lil Mustafa liban al quddus madrasatan biha yazulu al ada wal jahlu wal kamal loolu junj baatin la wax na ji moom am na ba noppi borom yonent ko tur ba moo ko moo ko moo defal na ko ba noppi ci maanaam bil Mustafa bil Mustafa lii banal qudduusu yàlla ci boppam moo ko moo defal na ko loolu dañ koy fekk moom mi ngi fi kon suñ tawfeex la ci nun nu ñëw war a liggéey liggéey bi rek nu fi andi liggéey bi dong moo a fi bàyyi nu am tawféex nag ñëw fekk loolu desoon ci li nga xam ne moom la mébétaloon lislaam mu daldi xam ne loolu amul wàcc waaw da jug dama ba ma bi ma jógee rek laa ko war a jógaale loolu moo tax ma defe ko noonu moom laaj ba ma jëkkee wax loolu laa wax ne mooy sama itte. bi mu ko xalaatee daf noo woo waxal boppam kàddoom mu dégg kàddu yooyee. bi nu ko déggee nag ñu teg ca ñaari fan daal di woote si kër Sëñ Tuubaa ga teg waxam ji ñu tedd jooyee ñu ñëpp ñu dégg ko ñu wut mbooloo lu mat fukki nit ak ñaar ba fukki nit ak ñett ko nekk ñu ne la danoo bëgg nga déglu waxi sëriñ bi yaa xam nag nu la soobee rek loo ko mën a déglu lu mu bari bari waaye li nga ci déggee nag nga bind ko bi nu ko defee loolu ñu tënk ko am ci wenn déggin dem yóbbul ko ko jàng ko mu dégg ñu jox ko ko mu toog ab diir waat yem ca bëgg yokk mu yokk ko ca la nga xam ne daf ko caa bëgg a dind mu dind ko ci ñu defaraat ko ba mu ne nii laa ko bëggee woon loolu nu ko joxoon muy rapport bu ñu ko njëkk a jox moom la jox ay architecte ne leen dama bëgg lii ngeen jëmmalal ma ko ci ay plan ñoom ñu def ko traduire ko ci ay image ak ay plan indil ko ko bi mu ko xoolee ba noppi mu yabal leenaat ci nun ñi nga xam ne noo doon def liggéey boobu yi ñu xoolaat loolee ba nga xam ne dëppoon na ak niñ xalaat ak liñ tëraloon mu soog joxe ndigal nag ci ñëw taxawal liggéey wala tuaxisna bi suu'i Ahmadul Khadim ngir jàng ak yar koppar yiñ ci def buñ koy xayma si xaalisub réew mi yegg na si fanweer ak juróom-ñaari milliards yu toftal bërëb bu yaatu jege fanweeri hectare am ay jàngukaay yu feccantikoo te wuute doore ko sikki dal ba ba si njàng mu kawe mi njàngum alxuraan ak institut du Coran majalis bi ngir jàngum xam-xam université ngir jàng mu gën a kawe ak ay pôle yu feccantik euh, complexe bi nag euh, muy mu jàmma cheikhul cheikh ahmadul xadim li tarbiyati wa takwin euh, dañ koy gën wax université waaye sëriñ bi daara ji mu taxawal day daara joo xam ne dafa ëmb ay pàcc yu bari euh, université bi bokk ci pàcc daara ji daara ji dafa daara doon daara joo xam ne dafay jëmmal gis-gisu sëriñ bi gis-gis bi nga xam ne mu ngi tënku ci ni mu koy faral di binde mooy al ilmu naafi wal amalu saalih wal moom sax moom lañ jël muy bàkku euh, muy devise daara ji mooy xam-xam bu am njariñ jëf ju baax ak teggin yu ñu gërëm mu doon daara joo xam ne it li ko tax a jóg rek ni ñu ko waxee jëmmal njàngalem sëriñ bi waaye war a am ay mission yoo xam ne mission yu yaatu la waaye mën nañ koo tënk ci ñett yoo xam ne bu ñu duggee ci pàcc daara ji pàcc bu nekk am na lum ci taxawe waaye li jiitu ci daara ji mooy ak takwinul ilmi mooy formation boo xam ne formation bu tege ci xam-xam waaye boo xam ne dafay dëppoog fi jamono toll waaye doon boo xam ne day ëmb njàngaleem lislaam mooy dañuy former nit ki eh, ci formation boo xam ne formation islamique la waaye teg ko ci norme académique yi nga xam ne fi la jamono toll mu doon daara joo xam ne kër gëstu lay doon mooy albaxsul ilmi waaye muy recherche scientifique boo xam ne dafay liggéeyal maanaam lii di yokkute yokkute boo xam ne day tàmbalee fii eh, ci wàll yëpp nag waaye day ëmb réew mi mën nga ne ba génn ba bitim réew muy daal ndax day liggéeyal humanité ci boppam maay xam-xam boo xam ne day jëriñ àdduna bépp waaye it doon daara joo xam ne bokk na ci ay mission mooy tasaare lislaam njàngalem lislaam rawatina ci manhaj wala njàngalem Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu nga xam ne dafa ñëwoon ngir yeesal lislaam jàngale ay valeur yu yaatu yoo xam ne adduna bi soxla nañ ko lu aju ci jàmm lu aju ci liggéey Euh, lu aju ci jikko yu rafet loolu kon mën nga ne mën nañ koo tënke ne mooy mission daara ji moo tax ñu tëral système ñu nekkoon kon nañ tëral njàngum alquranul karim ndax mooy lan lépp ci lislaam nañ tëral itam njàngum li ñu tudde majalis mooy njàngum xam-xamu lislaam mi nga xam ne moo nekkoon cosaan ci ci réew mi dañ tëral tam njàngum école école moderne nañ tëral njàngum université tam enseignement supérieur moo tax ñu Euh, def ci xeet yooyu euh, mu mat euh, ñeenti xeeti jàng yoo xam ne yëpp dañ leen tëralal programme moo tax ñu tudde ko système complexe bi nag sëñ bi dafa am yu mu tànn ci yooyu ne yooyu la bëgg a tàmbalee ci complexe bi muy daare alquran ak daare majalis ak enseignement supérieur rawatina faculté boo xam ne étude arabe islamique lañ fay def loolu mooy complex bi waaye ci biir système bi la nekk institut du coran maanaam daare alxuraan yi ni mu ràññee ko moo di donga yi dañ leen di jàngal ci at yu gën a gaaw juróom-ñaari at nga mokkal alxuraan ba noppi beqi te njàng mi sëriñ bi mooy war lépp ndonga yi daara ji nag di ko tax a jóg rek mooy jàngal alxuraan ñu di ko mokkal ci riwaayatu warsh eh, ak mokkal gu wér nag comme ni ko mag ñi daan defee démb Euh, di ko euh, mën bind ta duñ ko xool maanaam mokkal ko man koo tari mën koo bind ta duñ ko xool euh, te jiir maanaam yàgg gi daan yàgg bu njëkk duutu yàggee noonu tumurank gi ci daan amit dutu ci am ko defe nga xam ne diir bi ñuy jàng alxuraan ci juróom benn at rek lay toll bu soobee yàlla ñeenti at yi ci la ñuy jàng alxuraan ba wàcc yeneen ñaari at yi ci des ci lañ koy euh, dëgëral maanaam diggante li ñuy wax beqeek bind kaamil ak jàng njëlbéenu xam-xam yooyu juróom-benn at yi daal ci la ñuy euh, mokkal alquran mokkal bu wér jàng ci euh, njëlbéenu xam-xam yi ba noppi itam lépp amut amut kenn du fay dara maanaam bi mooy mooy amee lépp daal hmm, ci njëlbéen gi Euh, dana war a mën a jël junni dong ak ñaar téeméer ci njëlbeen ci li nga xam ne moo moom lañ tàmbaleeguñ ci bâtiment yi fi nekk ni nga xam ne bu àggoon tey ñu daa tàmbali junni dong ak ñaar téeméer lay war a doon ay góor ak i jigéen waaw dana am ay góor am na ay jigéen dana am it mën naa am it ñuy jàng di ñibbi ak ñoo xam ne dañuy dëkk ci daara ji njàng li mi itam dana ànd ak nag ay ay yeneen activité maanaam loo xam ne pour yar dong yi lay doon ak tàggat leen def ci ñoom ay jikko nga xam ne du yem rek ci njàngalem arafi kese waaye dañ leen di tàggataale ci eh, ñu amee jikko yu baax maanaam lii sëriñ bu mag bi amoon ndigal ba ba tax mu woote wooteem bi muy jàngale te te njàngale mi ñu boole ci eh, maanaam bu boole ci yitte te mooy fexe ba nit ki am ay jikko yu baax yoo xam ne fu mu dem mën nekk loolu itam daara ji daf ko bàyyi wàll xel di ko dugalaale ci biir njàng mi. ñi jàng itam dañ leen di tànn dañ leen di tànn ci seenu mën a jàng ak maanaam seenug mën alquran waaye te tànn leen ci mën a jàngale man a jàngale ci lewet gim laaj ak mën a maslaa gim laaj ak mën a euh, te xale bi ba mën a def ci moom li nga bëgg def ci moom te du ànd ak fitna yooyu yëpp dañ ko ci tànn. di aw yoon walla yóbbu si ñaareelu tolluwaay bi majalis ngir jàngum xam-xam. ñu daal di koy dëppaleek jamono ak njàng mu gën a kawe. waaw majalis bi de am njàng la moo xam ne aw jàngalin la woo xam ne bu yàgg ci réew mi lu yàgg ci lislaam la mën nañoo wax ne borom xam-xam gën a mag ci ci njàng moom lañ jàng gis na ko tuddee taalimul atiq ci yenn réew di ko tuddee ak taalimul asil ci yeneen réew kon tur yi daan wute waaye moom cosaan mi nga xam ne dafay lalu ci xam-xam yi diine yi. xam ne xam-xamu diine lañuy ñuy donc dañ ciy jàngal ci biir xam-xamu diine làkku arab ci la bokk ndax mu ëmb xam-xamu diine yi jànge woo xam ne day day boole di ko mokkal ak di ko rek fexe ba mu nekk ku am culture lu mu xam ci islam waaye day peeg fànn gi lu bokkoon ci li gën a ràññi ko moo xam ne eh, yàgg na am jeexit eh, yàgg naa bari njariñ it mën laa wax ne la kilifa yu mag yëpp ci lañ jaar tëralin yu yees yi amee e, la tàmbali waaye bu njëkk ñëpp ci lañ doon jànge nga xam ne fànn gune ne da koy jeex moo tax nag sëriñ bi wax ne njàng moomu mooy cosaan ci dëkk bi sunu ma ngi baax ñëpp ci njàng moomu lañ jànge ba ba raw kon nag lépp lu muy tabaxal sëriñ bi faw jiital ci njàng moomu moo tax njàng moomu bàyyi ko xel nga xam ne mbooleem téere yi nga xam daan nañ ko jàng di ci jàng diine wala làkku arab dañ koy jël waaye nag mottali ci yenn fànn yu yi nga xam ne xëy na jamono yi ñu daan yooyu fànn yu amagutoon ak yeneen fànn yoo xam ne jamono soxla na ko yooyu lañ boole tëgg ko ci ab programme boo xam ne boo ko xoolee la lañ doon jàng démb lépp nga ca waaye nag mottali nañ ci lu manqué woon loo xam ne bokkutoon ci loon jàng ngir xëy na barab yi nekkoon wala jamono laaju ko te jamono laaj ko léegi ñu séddale ko nag ki ñeenti étape étape bu nekk di nekk ñeent ñetti at nga xam ne xale bu ci duggee ba bi jeexalaal fukki at ak ñaar la fi def buy génn niveau licence lay génnaale ci xam-xami lislaam yi ak làkku jàpp nañu boobaa yi dana peek ci aju ak xam-xam yi koy dimbale danañ jàngalaale it làkk yi dund ci àdduna yoo xam ne nit ki da soxla ngir euh, buy wooteel yàlla mën koo jëfandikoo ci yeneen fànn yi xam-xam yi nga xam ne àdduna da koo soxla ngir dund bokk na ci xam-xam yi nga xam ne dugal nañ ko ci biir di ko ci jàngwaale ba tey bokk na ci lu yees la ci mu jamax bi yokk njàng moomu daawul yitte woon lool lool lool di natt njàng mi def ay examen di natt xale bi fu mu toll bii nag fu mu toll fu am na ko ñeenti marxala la marxala bu ne nekk ñetti at mu ne danañ ko natt ba xam dana mën a jàll ci atum ñaareel bu bu bi jeexee ñu natt ko ba xam dana mën a jàll ci étape bi ci topp noonu lañ koy toppee ba bu ñu àgg nga xam ne fu ci nekk it bu jeexalee marxal am na diplôme lijaasa buy saxal ne jeexal na marxal bi man nañu jàpp ne ñetti at yu njëkk yi la mu fay jëlee toll ak certificat bu ci topp toll ak brevet bu bu mujj ba toll ak licence waaye nag moom njàngum diine lay gën a soxal ak xam-xam yi dëgëral diine ak yi koy jàppale yooyu daal ci lay ci lay gën a euh, jëmal ab liggéeyam ak làkk yi nga xam nag dañ koy soxla dañ fi jàngal bu ci jeexal gi finance islamique di sàkku ci ki fi jàng it mu def ay gëstu nga xam ne buy génn euh, day génnale ab gëstu boo xam ne moom la ñuy ci lañ koy natte ba di ko jox la lijaasa bi ñu koy jox yitte mémoire université bi ci ñetti UFR ak ñetti institut ñetti UFR di bërëb yu ñuy jàng tey gëstu waaye tamit ay institut yu jàng ci wàllum wér-gu-yaram wàllum mbay wàllum xarala ba si li nga xamante ni bii moo di wàllum yër gi di ay téere IFR étude islamique et arabe mën nañ ne mooy IFR bi nekk ndey université bi ndax mooy cosaanam euh, li muy war a taxawee ci liggéey bi it mooy jàngal doomi jullit ñi euh, mboolem xam-xam yi aju ci lislaam ak fànni xam-xam yi aju ci làkku arab ak fànni xam-xam yoo xam ne ay sciences humaines la ba ci sunu langue internationale yi nga xam ne jamono daf ko laaj ak suñu langue nationale yi ba ci informatique yooyu yëpp UFR bi daf koy taxawee. UFR bi dañ koo séddale def ko ñaari département wala ñaari section section bu nekk ak la mu jagoo ci ay am njàngale département bu njëkk bi mooy département étude islamique mooy ad-dirasatul islamia beneen département bi mooy. Euh, département langue et littérature arabe lugal arabiyya wa adabuha loolu mooy ñaari département yi département bu ci nekk nag ni ma la ko waxee rek sànq am na ay matière ak ay discipline yoo xam ne ca ngay màcc gën a jëm bu dee département euh, dirasat islamia xam-xam ya fa gën a fës mooy ulumul quran wal hadis mooy yi aju ci alquran ak hadis bu ca tegu mooy euh, al aqida wa tasawuf mooy xam-xamu pas-pas pas-pas ak soufisme théologie ak soufisme bi ci tegu mooy al fiqhu wa usuluhu boobu ci ponk bu ci am solo la mooy xam-xamu fiq ak euh, règle yi nga xam ne ñoo koy ñoo koy régir euh, beneen bi mooy al ulum al insaniya des ko fay jàng mooy lu mel ne ay philosophie psychologie et cetera yu mel noonu dañ ko fay jàng dañ fay jàng it euh, lugal arabe ci boppam dañ ko fay jàng euh, mu nekk fa benn discipline wala benn unité d'enseignement ak nag langue nationale yi langue étrangère yi ak euh, informatique yooyu kon ñooy domaines yi ñu jàng ci IFR wala ci département bu njëkk bi muy département science islamique wala étude islamique bu ñu demee ci beneen département bi muy département langue et littérature arabe muy al lugal arabiya wa adabiha Euh, domaines yi fa gën a fees mooy yi may bëgg a lim ba ci njëkk mooy al lugha al arabiyya langue arabe rek benn unité d'enseignement la fa al lisaaniyat muy linguistique moom tim beneen euh, unité d'enseignement la fa euh, al ulum al islamiyya science islamique dañ ko fay jàng comme unité d'enseignement moom tim al ulum al insaniya muy sciences humaines yi dañ ko fay jàng ba ci langue yi comme ni ñu ko waxee woon fale ak informatique yooyu ñooy domaine yi nga xam ne dañ ko fi jàng bi nag dafa am lu mu ràññikoo loo xam ne bari waa na université booy dem boo xam ne doo ko fekk dafa jox gëdd lool élément ak matière yi nga xam ne dañuy renforcer di dëgëral identité religieuse bi nga xam ne suñu mag ñu baax ñi ci lañ tënku woon Seexul Xadim radiyallaahu anhu tënkoon ci ay taalibeem moo tax xam-xam yu mel ne al aqidatul ashariya euh, loolu dañ koy jox gëdd day tàmbalee ci at mu njëkk ba ci at mu mujj bi te day am ci ñaari département yëpp li ñuy wax it at moom tim day day nekk ci biir programme bi tàmbalee ko ci at mu njëkk bi ba ci at mu mujj bi muy soufisme euh, histoire Sénégal ak histoire u l'islam yooyu it day nekk ci biir programme bi waaye nag li ñu tuddee euh, littérature sénégalaise d'expression arabe muy al adabu sénégali al arabi muy mbind suñu mag ñu baax ñii dañ ko fiy jàngale ci at mu njëkk mi ba ci at mu mujj mi ndax ña ci ci njàlbeen gi dañuy tàmbalee ci mag magi Sénégal yëpp waaye ci ñaar yu mujj yi nag ci la ñuy berale loxo nag Euh, bind mag yi toppoon Serigne Touba sëriñ bi ci boppam am bindam ñu ci noppee teg ci nag mag ñi ko toppoon seen bind yi dañ koy jàngale ci université bi te loolu day maaseeg programme bi ci njalbeen gi ba ci mujj bi. UFR euh, des métiers des sciences et technologies. mi ngi ñu ngi ko samp ci biir complexe bi ci pôle universitaire bi donc mu ëmb. juróomi département département bi ci njëkk mooy département bi ñuy wax génie civil donc euh, mooy batiment travaux publics am na département mécanique am na aussi département euh, haute étude commerciale muy HEC am département informatique et télécommunication ak beneen département bu ñuy wax département artisanat waaw boo xoolee dafa am phase bu ñu doon wax phase prioritaire mooy phase su premier cycle bi mooy cycle lu licence bi donc euh, ñi ni fii njëkk a formé ci ñetti at lañ leen di tàggat euh, jox leen li ñuy wax ay licence professionnelle alors licence yooyu nag moo leen di moo leen di mën a may ñu mën a dem euh, lig wut moo xam wutal seen bopp liggéey wala ñu dem wala ñu liggéeyloo leen te ñi leen di soxla it. mën na noo aju ci nguur gi mën na noo aju ci ñi demal seen bopp mooy privé bi mën na noo aju ci ay jàmbur mooy li ñuy wax euh, ONG ak ñoom seen waaye ñun li nu gën a yitteel nag mooy loolu la ñuy wax entrepreneuriat te mooy li li li li ëpp solo sax ci li ñu leen di jàngal ndax fànn bu nekk loolu da cee am solo lool am ci doole euh, nga xam ni bu boobaa ñoom ñooy wutal seen bopp liggéey te su boobaa ca lay ëpp njariñ ndax su boobaa mooy gën a mooy gën a mooy gën a amal amal njariñ askan wi. boo xoolee li wàllu ci wàllu bâtiment ak travaux publics boo xoolee daanaka mooy activité yi nga xam ne ñoo gën a ñoo gën a ñoo ñoo gën a siiw ñoo gën a bari ci li nga xam ne moo gën a dox ci réew mi rawatina fii ci Touba euh, ndax boo xoolee gannaaw mbay daanaka wàll woowu moo ci gën a bari te it dafa bokk ci li nga xam ne dëkk bi da koo gën a soxlawoo. muy lu nga xam ne dafa bokk ci li yëwanal sunu dund. beneen euh, solo si ferme ci bi am mooy euh, filière artisanat bi artisanat bi boo xoolee naka jekk euh, waxuma sax ci dëkk bi waaye ci réew mi yëpp wàllu artisanat wàllu informel lañ ko xamee waaye UFR bi daf ko gën a jox solo duñ ko jox gëddaam méngale ko ak li nga xam ni moom lañuy gis ci dëkk yi nga xam ni filière boobu. dañu ko yóbbu ci njàngale mi gën a kawe gën ko jox solo gi mu war a am boo demee fu mel ni Maroc wala nga dem fu mel ni Éthiopie boo xoolee ñoom si seen njàng mu kawe filière artisanat daf ci am solo lool ba nga xam ni chaine de valeur bi nga xam ni moom la xam-xamu der am ba ni nu koy ba ni muy mujje ci wàllu defar dàll defar euh, ay sag ak yooyu ak yeneen ak yeneen yi ci aju donc chaîne de valeur yëpp la ñuy la UFR de l'agronomie et des technologies alimentaires boo xoolee mbay moom ci ci réew mi boo jëlee téeméer bu ne juróom-benn fukki ak juróom dañuy bay te boo xoolee ci bassin arachidier mooy bassin bi ñu nekk nii nga xam ne fi la mbay mi ëppee 71 pour maanaam boo jëlee téeméer bu ne juróom-ñaar fukk ak benn. pour ci suuf yi dañ dañ ciy bay donc moo lay woon ne mbay lu am solo la te moridi tamit wax dëgg yàlla ba ñu xamee mouridisme ba léegi ci mbay lañ leen xame te lépp lu ñuy def tamit ci mbay mi daanaka li ci ëpp ci mbay mi lañ koy jëlee donc mbay dafa am lu am solo moo tax sëñ bi décidé que université bi d'abord mu dem UFR boo xam ne day day day liggéey ci wàllu mbay mi ak euh, technologie alimentaire maanaam lépp luy soppi liy jóge ci mbay mi ak càmm donc OFR e bi dafa am ñetti licence licence bi ci njëkk mooy licence agronomie ak production végétale maanaam lépp lu jëm ci gàncax gi production bi ak nuñ koy nuñ koy saytoo nuñ koy jànge ba xam ko ci technologie yëpp boo fi génnee licence boobu ngay am daba deuxième licence bi mooy licence bi nga xam ne moo jëm ci wàllu mala mooy licence élevage ak production animale donc licence boobu moo lay jàngal ba nga man fee génn am xarañte wala nga am compétence yi nga xam ne moo lay mën a euh, jox nga mën a liggéey ci ci wàllu càmm gi ak jur gi ak euh, maanaam nu leen di saytoo ci wàllu feebar yeeg ci wàllu yeneen yeeg yeneen li ko yi ko tënk yëpp donc licence boobu ngay am donc troisième licence mooy licence technologie alimentaire maanaam nu ñuy soppee li jóge ci gàncax gi ak li jóge ci jur gi nu ñu koy soppee ba nga xam ne dinañ ko ci conservation wala ñu soppi ko mu doon leneen loo xam ne dan aju valeur ajoutée bi dana yokku ba nga xam ne boo boo boo ko defee maanaam dina yokku dina yokku njëg gi di nga ko mën a conserver lu yàgg tamit ci technologie yooyu yëpp technologie licence boobu ngay am bu fekkee tamit bëgg ngaa gàttal sam njàng am na lu ñuy wax DUT diplôme universitaire de technologie boobu ci deux ans lay nekk en production agricole donc boobu tamit da nga koy am ci ci ci UFR e bi. complex Cheikh Ahmadul Khadim ngir jàng ak yar dafa nekk bërëb boo xam ne dafay sàmm suñu ndono si wàllum diine ci réewum Sénégal sàmm suñuy aada. waral njàng mi samp ay reenam si biir réew mi waaye tamit ubbi ay bànqaasam si àdduna warngal këpp institut bi euh, pàcc la ci biir université bi euh, pàcc la nag boo xam ne boo am solo euh, bi war a ci lépp luy tàggat ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàllum santé di demee ni ki ay médecin di demee nekk ay dentiste ak euh, ay infirmier ay sage femme et cetera donc euh, ci loolu euh, dañuy sukkandiku ci formation initiale maanaam ñi nga xam ne dañuy soog a tàmbali mais également formation continue ah, formation continue bi nag ñi tax mu jóg moom mooy ñi nga xam ne maanaam jàng nañ ba pare am nañ seen métier ñu ñëw yokk seen xam-xam donc loolu tamit dafay nekk euh, benn fànn boo xam ne dañ koy farataal ci ci ci biir université bi euh, bu weesoo loolu également euh, ñu xam ne jàngale bi nga xam ne moom la ñuy jàngale dañ koy sukkandiku ci curricula maanaam tëggin bi nga xam ne organisation west africain de la santé ñoom ñoo ko tëggee lépp lu jëm ci formation Euh, dans le domaine de la santé wante nag ginnaaw euh, dañ ne université euh, Touba dafa am loo xam ne lu am solo loo xam ne xalaat nañ ko ci mooy dugal ci li ñuy wax ay unité enseignement yu jëm ci humanité maanaam lépp li nga xam ne dafa dem jublu ci ubbeeku doomu aadama yi li nga xam ne dafay ubbeeku ci yar ba tax na unité d'enseignement boobu lañ ci introduire bëgg ci mën a aussi euh, jaarale njàngale sëriñ bi euh, nga xam ne bu boobaa ñi nga xam ne dañ leen di former fii donte métier lañ leen di jàngal mais danañ am danañ bénéficier wu donc ci njàngaleem euh, sëriñ bi à travers bien entendu UE boobu nga xam ne moom lañ tuddee wàllu humanité leneen li nga xam ne aussi am na solo trop mooy projet bu toll nii dafay impacter donc positivement Euh, le système de santé au niveau de Touba maanaam lépp li nga xam ne dafa jëm ci offre de soins da koy améliorer ndax euh, dina tax ñi nga xam ne dañuy jàng bu yéegee benn niveau bi dina am lu bëri luñ mën a di ko indi di di indi ci hôpitaux yi nga xam ne ñoo fi nekk ak euh, maanaam centre de santé yi ak yu demee noonu ñi nga xam ne aussi dañ fiy jàngale ay fajkat la ñuy nekk bu boobaa ñoom tamit danañ mën a def seen loxo ci ci santé bi Euh, barab yi nga xam ne dañ fiy jàngee tamit ci wàllum santé euh, dafay nekk barab yoo xam ne day am benn plateau technique bi euh, donte jàngale mooy tax mu jóg mais également dañ ciy fajaale mu nekk yooyu yëpp mu nekk lu am yu am solo yoo xam ne maanaam dana changer xar kanam wàllum santé donc ci ci fii ci Touba. Institut ci. ci structure yu nga xamante ne euh, ci complexe bi ñoom ñooy jàppale képp ku nga xamante ne nga jàng benn ci lakk yi muy lakk réew mi mbaa lakk yeneen yi nga xamante ne mu mu mel ni anglais wala arabe euh, institut boobu moo ko yore institut bi nag euh, statut type communautaire la maanaam luy luy féddale luy rassembler yeneen UFR yi Euh, institut boobu nag ñaari département ñoo ko ŋànk benn département bi département lang la tudd maanaam département boo xam ne képp ku bugg jàng làkku réew mi wala ajami wala làkk international euh, foofu ngay ñëw ñu jàngal la am na ci ay formation yu gudd ak yu yoo nga xamante ne mooy gën a gàtt ndax day am ñoo xamante ne dañu am euh, dañu jàng seen cursus yëpp arab lañ ko def wala ñee seen cursus yëpp français lañ ko def te ñu bugg inscrire ci beneen faculté wala UFR bu ko defee dañuy jaar ci institut bi def bu gàtt boo xam ne euh, ñaari semaine ba juróom-benn semaine loolu dina leen permettre ñu mun a dem inscrire fu ñu bëgg ndax barrière lu nga xamante ne obstacle da daal ci làkk làkk moom lañuy bañ mu am ci université boobu dañu bëgg quel que soit niveau nit ki ak cursus bu mu topp muy euh, bac arabe muy franco arabe muy français tout court wala anglais nga mun a compenser wu ak benn formation bu lay permettre nga inscrire fu la neex. beneen service bu bu am solo bu nekk foofu ci euh, institut des langues et des métiers du livre mooy li ñuy tuddee presse universitaire Cheikh Al Euh, presse universitaire yooyu moo nar a mool téere yépp yu nga xamante ne moom la enseignant chercheurs yi di di di di produire wala étudiants yi bu amee ay rapport bu amee ay thèse ak mémoire euh, wala ay article euh, presse universitaire boobu moo koy mool moo tax presse universaire boobu lu am solo la ndax dina tax ñu gën a valoriser patrimoine mouride Euh, lépp lu nga xamante ne moom la kii bi di liggéey complexe bi euh, service boobu moo ko di liggéey. waaw institut bi IFOWAD IFOWAD la tudd institut de formation ouverte à distance waaw mooy bërëb boo xam ne dama dañuy mën ngaa toog sa kër mbaa toog bërëb ba nga ne di jàng jaaree ko ci xarala yu bees yi comme ordinateur yi wala téléphone yi waaw donc moom c'est institut de formation IFOWAD C4. waaw donc il IFOWAT moom maanaam niñ ko niñ ko xalaatee tàmbali guñ ko waaye niñ ko xalaatee dañ ko xalaat maanaam dale ko ci li jot a am ci université Sénégal yi bu Ndar ak bu UVS waaw ndegam bu dee boo jëlee université université bi du Sénégal nga xam ne lépp mu enseignement à distance la bokkul ak bi am Touba nga xam ne dafay am formation présentielle ba noppi institut ci biir genre UFR lay nekk institut boobu nag maanaam ni muy doxee mooy dafa am lu ñuy wax direction de des études et de la formation mooy DEFIP moo am aussi lu ñuy wax DSI mooy di di direction des des infrastructures et de du système d' information kooku mooy yor lépp loo xam ne moom plateforme yi. ndax boo waxee enseignement à distance d'abord dafa dañu fa am lu ñu naan plateforme plateforme de de formation yi fa la cours yi di nekk da nag ndongo yi door a ñëw mën a connecté wu seen ordinateur ak seen machine mën a jàng waaye dafa am mboo groupe boo xam ne kuréel goo xam ne moo yor lépp luy plateforme am na wax di di si ginnaaw loolu ñooñ ñooy defar plateforme yi ba mu baax maanaam fexe ba réseau bi di fonctionner fexe ba lépp dox léegi nag moom beneen kuréel bu ñuy wax euh, DEFIP direction des études et la formation et de l'ingénierie pédagogique ñooñu ñoom ñooy ñoom ñooy jël cours yi dugal ko ci plateforme yi fexe ba ndongo bi mën a gis cours bi maanaam exercice yi mën a dox ba njàng mi mën a dox loolu mooy DEFIP noonu lay demee kon dafa am DIGI moo technique bi am DEFIP moo yor dugal cours yi dugal ndongo yi dugal jàngalekat yi dugal tuteur yi ba programme cours yi kon noonu lay demee léegi nag ndongo yi door a ñëw ñoom ak jàngalekat yi. day fekk d'abord institut yi nekk fa majalis nekk fa UFR yi nekk fa di jàngale ci teew waaye il faut waat nag bu ñëwee moom moom de accompagner ñooñu. ba nga xam ne ndongo yi nga xam ne bu ñu amoon lim boo xam ne dootul xaj ci saal yi ñooñu moo toog seen kër di jàng ba toog fu leen neex di jàng waaye du ci yem il tamit dina dina proposer ay ay bind ay jàng ay proposé ba ay dina jàppale ñee majalis institut UFR ñu ñu def à distance waaye moom it dina proposer ay ay ay formation ci boppam pour ndongo yi ak ñu xam ne ñu ngi seen kër ak ñu nekk ci biir réew ak ñi nga xam ne sax dañoo dem ba nekk ci prison di jàng wala ñi nga xam ne dañuy nekk seen kër di sëy di jàng wala ñi nga xam ne dañoo am laago am jafe-jafe déplacé toog fi ñuy toog di jàng. université bi. université boo xam ne ni université d'excellence la même boo xoolee conception bi euh, dañoo fexe euh, loo xam ne nii day nekk euh, moomeelu murid yi ak jullit yi waaye aussi bëgguñu système boo xam ne day coupé day système boo xam ne daal du day isole moo tax ñu def benn montage boo xam ne nii buñ ko defee dañuy mën a nekk en coopération avec toutes les universités waaw par exemple boo xoolee université bi ni muy waaj ni muy fonctionner du am différence ak yeneen université yi nekk ci dëkk bi ndaxte euh, da ngay gis université bi day am ay rectorat dem ay faculté ci biir faculté am ay département te texte yi tamit ay texte u LMD la texte yi tamit mooy loi yi nga xam ne moo daanaka région université Sénégal yi loolu lépp pour euh, tout en respectant originalité université Touba bi tamit fexe mën a lënkali université bi ak yeneen université nekk ci Sénégal ak yeneen université yi nekk ci àddina bi parce aussi tamit am euh, aussi euh, bëgg-bëggu étudiant bu génn fii tamit liggéey si bi ngay am boo nekkee Sénégal day valable boo demee Burkina Faso wala yeneen pays day valable boo demee France day valable nga xam ne daal day am diplôme boo xam ne dem am reconnaissance internationale. waaw loolu xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bachir ci boppam moom moo ko. moom moo ko bëggee noonu waaw moom moo ñu demandé woon bi ñu commencé liggéey ci biir euh, programme yi mais aussi tëral infrastructure yi ni mu war a demee mu ne ñu ñu def université boo xam ne euh, de classe mondiale lay doon euh, loolu nag dafa am fu muy jaar fi muy njëkk a jaar mooy programme yi tëdde noo xam ne Eh, ni jàng war a doxe Sénégal ci daara yu kaw yi noonu la war a tëdde wante it eh, ñu def ba nga xam ne day dëppoo ak li am ci àdduna bi eh, ci réew yi nga xam ne seen koom-koom féete na kaw loolu nag mooy aspect international bi loolu dafa am nu koy taxawale en particulier li ci gën a am solo mooy mu jël lii nga xam ne moom la ñuy wax système licence master doctorat euh, loolu moo njëkk a taxaw parce que bu li jaay say diplôme yi dëppoog loolu euh, au niveau national foofu amatul benn jafe-jafe parce que gouvernement moo décidé ne njàng mu kawe mi à part école d'ingénieur yi li ci des yëpp système LMD la war a doon waaye système boobu aussi Euh, moom moo nekk au plan international euh, ce qui fait que boo fi amee licence ñu reconnaître ko nga am fi master ñu reconnaître ko nga am doctorat ñu reconnaître ko équivalence yooyu ngay fekk ci yeneen réew yu yu développé yi daara ji am bërëbub gëstukaay bu mag a mag li ñu duppee daaray téere bibliothèque boo xamante ni bii am na lépp lu ñu soxla ngir gëstukat yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji ñu am lu ñu yittewoo dëgg ci wàllum gëstu. Eh, di leen wax ne bibliothèque boobu. Euh, lu am solo la ci université ndax euh, li ñuy wax politique documentaire maanaam lépp loo xamante ne jëm na ci nafar ak euh, njàng walla ay teede foofu lañ koy defee foofu ngay jëlee livre yi nga xamante ne téere yooyu daal moo mooy tax mooy dimbali ndongo yi mooy dimbali jàngalekat yi moo tax mu nekk lu am solo bibliothèque boobu nag moo war Euh, yor li téere yi ak euh, lépp lu nga xamante ne jëm na ci njàng euh, moom mu ngi superficie mu ngi toll ci 2000 mètres carrés ñu tabax ko ci six niveaux dafa am benn sous boo xamante ne moo nar a lépp luy métier boo xam ne day indi bruit mu ngi mel ni reluire yooyu yëpp ci red ci sous-sol bi la ak benn rez-de-chaussée ak quatre étages donc loolu mooy euh, bibliothèque bi te mu ngi nar a bokk ci zone une zone bu nga xamante ne euh, administration bi la ak service commun yi euh, foofu la bibliothèque bi bokk bibliothèque bi am na solo bu nga xamante ne dina am volet boo xam ne multimédia la volet boobu tam lu am solo la ci bibliothèque ndax ak ndax fi ñu toll nii njàng mi am na euh, côté physique waaye côté virtuel bi tamit day am solo ci bibliothèque bibliothèque bi ni mu ràññee ko lool ak soloom si mu am si université bi du tee ñu bàyyi xel saa su nekk këru xasida yi ndax dafa doon loo xamante ni bii guléet la sëñ bi xalaat ko teg ko si loxoy ndem si yàlla Serigne Atou Diagne mi nekkoon njëriñ daara Hizbut liggéey bi mu amal ko nu mucc ayib tey jii ndoone la ñu koy wéyal nu mu gënee kawe. waaye sëñ Muntaxa ci xalaatam euh, boo xoolee moom moo jëlal boppam initiative jël projet kër xaside yi nga xam ne boo nee université di nga xam ne dina am bibliothèque universitaire waaye créer bibliothèque boo xam ne dafa spécialisé ci écrit wu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimal Moustapha kooku initiative wu Cheikh Mouhamadoul Mountakha la bi yàlla suñu borom dogalee mu am ko it euh, ki nga xam ne mënuma tàmbali te mënuma tàmbali samay kàddu te renduma ko hommage mooy suñu kilifa di suñu jëwriñ ji nga xam ne moo tàmbali woon projet bi ak Serigne mun taxaw muy sëñ atu di ko ñaanal suñu borom gàttandu ko ak yërmandeem gàttandu ko ak njëggalam te fay ko lu tollook lii muy fay di liggéeyal sëñ Touba ba mu gërëm leen loolu defe naa lépp a ci biir muy un séjour éternel au paradis Euh, moom nag sëñ Muntaxa bi mu ko koy euh, jox dafa yëkkati loxoom teg ko ci moom rek sama waa ji laa koy àndal loolu nag lu rëy la lu historique la loo xam ne taarix da koy téye li muy wane itam mooy ne ñun dañuy wéyal rek mais li ci ëppoon solo suñ Aatu daf ko def ñu war koo sant war koo gërëm war koo kañ lan moo ci ëppoon solo mooy liggéey dafa am ñaari phase dafa am phase boo xam ne c'est la phase de conception c'est la phase stratégique boo xamante ne ay xalaat moo ci ëpp doole ak expertise loolu daf ko liggéey def ci itam loo xamante ne euh, xar baax sax daf cee feeñ ndax loo xamante ne ça du nous au moins un an un an et demi phase d'étude ndax Serigne Mountakha mi ngi ñu jox liggéey bi le 20 décembre 2019 loolu ci la ndigal li am. waaye diggante le 20 décembre ba le 2 avril 2020 ñeenti weer yoo xam ne sax matul si atu lépp loo xamante ne mooy tax vision bi mu traduire ko def na ko les esquisses de plan l'avant-projet sommaire l'avant-projet détaillé nga jël lépp lu jëm ci plan d'architecture yi ak plan béton armé yi lépp mën na ay équipe yu professionnel ànd ak ñoom guddi ak bëccëg suba ngoon liggéey ba lépp sotti nga xam ne en quatre mois tout a été stabilisé loolu kon defe naa war nañ ko ci kañ ndax euh, liggéey bi lu nit defati rek ci xalaat yooyu lay lay kon euh, bu ñu jëlee këru xasida yi proprement di nekk na benn makkaan goo xamante ni am na ñetti pàcc ñeenti pàcc pàcc bu njëkk bi dafa doon benn kaaw boo xamante ni foofu la. imprimerie bi di nekk beneen pàcc bi nga xamante ni moo ci topp moom la ñuy wax rez de tombeek fi nga xamante ni foofu lañ toll jamono yi ci wàllu liggéey beneen pàcc bi nekk premier étage beneen bi nekk ñaareel bi étage waaye ci pàcc yooyu it dafa am loo xamante ni noonu la këru xasida yi bindoo fi nga xamante ni mooy wet gi nga xamante ni foofu la téere yi nekk moom la ñuy wooyee carrément bibliothèque ci biir loolu nag am na ay yenn yu ko wër yoo xamante ni ay barab la pour liggéey yoo xamante ni dafa jum dafa jëm ci wàllu bibliothèque bi muy li nga xamante ni mooy lu ñuy wax euh, salle boo xamante ni pour bindukaay la fu ñuy bindee am yoo xamante ni pour foo xamante ni dinañ fa mën a déglu lenn si xasida yi ak ay jumtuwaay yi nga xamante ni mooy ànd ak lii bibliothèque di laaj ci loolu nag am na yeneen bâtiment boo xamante ni dañ ko see toftal muy auditorium muy loo xamante ni dana baax ci tey bu fekkante ni dañoo am mbooloo mu war a nekk fenn ñu war leen a présenter masalan war leen a woon xas dëgguñ bind wala lenn fi nga xamante ni foofu la ñuy nekk muy auditorium bi loolu it am na fi auditorium bi nag nekk na espace boo xamante ni mën na jël lu tollook euh, téeméer ak ñaar fukk ci ay place yoo xamante ni li ñuy woowe place VIP ci ginnaaw auditorium bi it ci kër xasida yi waajal nañ fi tamit foo xamante ni maanaam ay salon la yoo xamante ni tey bu fekkente ni am na ñu fi ñëw fu ñu leen di dalal ba noppi balaa ñuy dugg fi ñu war a dem waajal nañ tamit foo xamante ni ki nga xamante ni moo fi nekkal sëriñ bi nekk ci kilaafa gi am na benn suite tamit buñ ko waajal boo xamante ni dafa ànd ak salle d'attente ak néegu boppam bu ànd ak euh, dressing ak wàccuwaay ak yëpp donc loolu mooy li nga xamante ni moom moo composé globalement kër xasida yi yeneen ñaari niveau yi si toppit am na ay bureau yoo xamante ni foofu la nekk na fi nga xamante ni moom mooy doon euh, salle de réunion rawatina tamit fi nga xamante ni mooy doon ay salle de tradition yooyu yëpp am na ci biir lu ñu waajal loo xamante ni moo ngi nekk toujours si këru xasida yi maanaam lépp luy accompagner bibliothèque que ça muy bureau yeeg yëpp fagwaale nañ ko ci lépp nag daal di dëxuñu doon li nga xamante ni mooy kër xasida yi ñiy saytu njàng mi am si daara ju kawe ji si ndigalal sëriñ Muntaxa Basiru xalif général des Mourides tënk nañu mbooleem li nga xam ne moom la sëriñ bi soxla ba jébbal ko ko lépp yemb na jamono ji door rekk moo ci des te it daara ji dëppook mbooleem daara yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna buñ jëlee commission enseignement supérieur mën nañ jàpp ni programme yu ñu yu ñu sumb ni bu université bi tijjee moom la ñuy jàngale programme yëpp def nañ ko ndaxte xam nga ci ginnaaw ay ay semaines yi semaines ngi nii ñu def ay séminaire def ay atelier Euh, ci Touba euh, nga xam ne ñëpp ay jóge fu nekk jóge fekk si waa dëkk bi ñu def ay lël yoo xam ne ni tax na léegi euh, département bu ñu wax rek ci université bi ak faculté bu ñu wax ci université bi ak département bu ñu wax ci université bi rek programme taxaw na. non seulement programme yi pare na mais ña fay jàngal tamit sax profil yi nga xam ne nii moom la laaj muy profil enseignant yi nga xam ne war dugg foofu tamit ak ni ñu duggee tamit. lépp def nañ koy lël ba tënk ko ba def ay profil yoo xam ne nii mooy correspondre ak ñi nga xam ñoo war a jàngale foofu bu fekkee tamit affaire besoin la xam tamit jàngale day laaj logistique ak ay moyens matériels ak ay moyens documentaires yooyu tamit xay xayma nañ ko ba tënk ko def ko ci kayit nga xam ne nii mooy li nga xam ne bu ko amee mën na tàmbi daal liggéey liggéey bi daal. léegi ci loolu nag première étape bi euh, moom la sëñ bi di tuddee yoonal yoonal boobu nag fi muy jaar ci enseignement supérieur. mooy boo paree tëgg programme yi taxawal say infrastructure da ngay daal di déposer dossier ministère de l'enseignement supérieur loolu sëñ bi euh, noonu la ko jaare euh, reconnaissance boobu nga xam ne moom la képp koy commencer université Sénégal loolu ngay commencer maanaam agrément boobu autorisation d'ouvrir boobu dina génn bu génnee ba pare nag li ñu jotaat aussi ci ndigal ci sëriñ bi mooy ñu jaar fa mu war a jaar ba dem ci beneen phase bi nga xam ne moom la ñuy wax habilitation institutionnelle maanaam beneen niveau la nag de qualité booba fekk na ñu dawal am njàngale eh, eh, dongo yi nekk fa jàngalekat yi nekk fa eh, structure bi ñëw nattaat ko nag ba xam est-ce que lii normes yi jaar na yoon bu loolu amee ñu soow a dugal programme yi programme yi dañ leen di dugal parce que loolu la Sénégal exigé ñu def li ñuy wax accréditation foofu it dañuy envoyé expert ñu ñëw xool programme yi. loolu yëpp sëñ bi prévoir na ko te jox nañu ci ndigal pour ñu doxale ko ni nga xam ne noonu la war a doxee ci Sénégal noonu la war a doxee ci Afrique noonu la war a doxee ci ci àdduna bi yëpp. université bi ñëwee dafa fekk waxtoom jot ndax fekk na ñu formé lu bari nga xam ne war nañoo àgg ci niveau njàngam université te amaguñu fu ñu ko woon defee walla boobu dañuy déplacé rek ci réew yi. wala ci yeneen béréb yoo xam ne nii nañ ko fa doon nañ ko fay nañ ko fay def ci jafe-jafe lay doon comme nañ ko nañ ko xamee njàngum université laaj njàng mu xóot la te amuñ def ci def ko ci biti waaye bu dee fii nag dana may Sénégalais yi ak dong yi nga xam ne ñoo fi dem ba seen war a xóotul seen njàng ñoom fu ko defee léegi nag loolu dana dana dana nekk bunt bu am solo ci ci wàllu maanaam jàppandale nit ñi ñu mën a def seenum jàng mu kawe dinañ ko bëggee. des sa tuuti bu bu euh, liggéey bi tàmbalee dox dana jafe lool nga gis koo xam ne ki daf fi bàyyi ko comme nii ni mu amee naan damay dem ci day dem ci ay réew yeneen réew réew yu naar yi wala réew yu arab yi wala réew yi wala yeneen réew di fàggu yeneen i xam-xam loolu day gën di jafe di gën di jafe ba keroog muy muy muy muy muy dañ. te loolu du yàgg du yàgg dara ba ba ba pare nag ci wet gi nga gis nag koo xam ne kii day jóge ci beneen beneen réew mbaa mu nekk ci yenn beneen alam dégg Tuubaa xam li fi xew fëx wutal si fi ngir ngir ngir ngir ngir sàkku si xam yooyu ndax fàggu gu ko sëñ bu mag bi sa fàggu euh, bâtiment bi euh, nga xamante ni moom mooy témoin bi dafa jàkkaarloo ak bâtiment bi nga xamante ni mooy bâtiment milieu bi nga xamante ni moom ci boppam comme daf ko jege moo tax bi ñu defee gros bi ba nga xamante ni pare na gros bi yëpp ñu ngi ko def ci huit mois ci loo xamante ne un an six la waroon doon mais logistique bi moo tax ñu def ko ci six parce que dañu indaale woon ay turc indaale ay espagnol indaale ay euh, italien ba pare nag boole leen ak sénégalais yi nga xamante ni ñii ay taalibe murit lañu ñii ay sénégalais lañu ñii ay taalibe euh, yeneen i tarixe lañu ñii dëkk Touba ñii dëkk feneen parce que dañu defoon appel boo xamante ni dañu woon dañu woo ñëpp. cinq zones yi nombre total de bâtiment bi ñu si am mu ñetti at ginnaaw bu ñu tegee xeer wu njëkk ngir liggéey daara ju mag yi ci diwaanu Touba nga xam ne tegtalu mooy dëkk bu sell bi di Touba samp ay renam ubbi juróomi bànqaasam ngir yokk li nga xam ne moo di gëstu ak xam-xam ubbeeku ci àdduna wërngal këpp teewul samp say reen ci réewum Sénégal ngir sàmm ndono li sàmm xam-xam bi waaye it dëppale kook jamono tey sàmm alam bi. fii dafa am euh, maître d'œuvre Euh, dafa am bureau de contrôle dafa am assistance maître d'ouvrage loolu moo am ci projet yi ñu xam euh, waaye ñun dañ cee boole leneen loo xam ne projet bii da ko am mooy ay taalibe yu jaayante euh, laxasaayu nekk ay ingénieur ak borom xam-xam ci ci seen métier. Euh, dem ci sëriñ bi euh, ñaan ko may leen ñu ñëw jàppale ko ci liggéey bi sëriñ bi nangu leen ko tudde leen aljaba euh, te ñooñu li ñuy ñuy def laajuñ ci dara kon loolu lu lu dolliku la ci projet mu fekk si nag entreprise yi fa nekk nga xam ne wax naa léegi euh, bu ca jiitu mooy li sëriñ bi di liggéeyloo mooy Touba matériaux waaye nag am na ñeneen acteurs yu fi nekk yoo xam ne euh, ñoom dañoo jaayante mën naa cee wax tubaa ca kanam ndax ñi fa jiitu lañ bokk jël nañ fi benn bâtiment mën naa wax kuréelu homme d'affaires yi nekk Dakar euh, ñoom it jël nañ fi lépp fukki bâtiment engagé nañ ko mën naa cee wax daayira ahlu Soda man naa cee wax daayira Taysiirul Asiir mën naa cee wax daayira euh, euh, al amaane wal baraka mën naa ce wax sëriñ Cheikh Abdoul Hakim jël jumaa ji ak centre de santé bi ak ak ak ak restaurant mën naa cee wax euh, ñi yaxantu Touba commerçant yi mën naa cee wax xisbu tarxe waaw ñoom it ñu def fi kër xasida yi muy lu lu am am solo lu rëy rëy loo xam ne euh, dañ koo beral xaside yi euh, ñu waajal fa nag yu bare bare bare yoo xam ne yoo am solo la ci liggéey bi loolu nag day fekk si li nga xam ne état bi am na yéene def ko fi ndax euh, sëriñ bi bi mu songee liggéey bi da cee dogu ànd kook taalibe yi état bi nag bi mu gisee loolu mu am yéen jàppale ko ci ci loolu centre de formation professionnelle bi matul tudd léegi muy métier yi centre de formation formation professionnelle bu am solo lay doon boo xam ne moom it njàng mi ci suuf lay tàmbalee jëm jëm ci kaw ne alxuraan ji tàmbalee ci suuf jëm ci kaw noonu la métier yi tàmbalee ci suuf jëm ci kaw moom kon loolu itam euh, day am day am solo muy centre de formation professionnelle am na itam euh, VRD yi mooy mooy tal yi waaw loolu itam. état yi état bi ñu ñu ngi waaj incha allah jot nañoo def benn daje ñu ngi waaj ñëw ngir ngir tàmbali ko. ñaari architecte lañ ku ñuy wax Thiaw Kandji ak man léegi xam nga euh, projet architectural boo koy def dafa am toujours ci ñun lu lay guider li lay guider mën na doon symbolique euh, mën na doon un élément déterminant de l' espace liñ fekk. léegi mais li ñu guidé woon bi nga xam ne par exemple nga xam ne dem nañ bay tëgg euh, projet bi euh, dañ koo dëppee dëppali ko ak dëkk bi nga xam ne mooy Touba euh, loolu nag dafa am lu simple rek loo xam ne moo tax biñ ne par exemple dañu def complexe nga xam ne complexe par définition bâtiment yu wutee la yu bëri loolu mooy complexe kon nag il faut am loo xam ne buum goo xam ne moom moo leen nas buum góor leen buum googu leen nas nag nga xam ne pédagogie bi definiir nañ ko ñun ci suñu wàll dañoo bëggoon a jël loo xam ne par exemple moom mooy nas bâtiment yooyu yëpp nga xam ne benn bu ci nekk mën nañu wax ne bokkut ak sa morom kon ñu dippee ko dëkk bi Touba nga xam ne boo koy seet garab la goo xam ne mu ngi sax ci digg àjjuma ci digg àjjana euh, banqaasam yi law daj fépp nga xam ne kon booy seet plan masse bi loolu symbole bi laay symbole bi laay wax avant ñuy dugg ci pàcc yi booy seet donc plan masse bi euh, dafay représenter garab comme garab googu sax ci àjjana waaye doon aussi nga xam ne par dafay indiwaat dëkk bi Touba ci boppam nga xam ne euh, garab la donc loolu mooy nga xam ne par exemple loolu mooy symbole bi mooy symbole bi nga xam ne mooy symbole fort biñ ko biñ ko bëggoon a jox biñ ko defee noonu symbole ba pare yàlla dafa def am yeneen yoo xam ne daf ci tombe daf ci ànd maanaam boo seetee pédagogie bi nga xam ne biñ ñu joxee li nga xam ne moom lay moom la les composants yi nga xam ne moom moo euh, mooy bànqaas yi nga xam ne ñoo ŋànk complexe bi juróom lañ donc muy juróomi îlot di juróomi bànqaas muy aussi beneen symbole boo xam ne feeñ na ci ci université bi. bànqaas bi njëkk mooy institut coranique bi mooy fi nga mooy daara alxuraan yi nga xam ne fa la ñuy jàngalee alxuraan. mu am beneen boo xam ne par exemple boo fa génnee yaa ngi ci majalis bi boo fa jógee ko nag ci li wax université proprement dit ci la ñuy ñëw euh, loolu yëpp nag dafa am loo xam ne par exemple moo ko ngànk buntu buntu d'entrée bi mooy administration bi mooy euh, nu mu tuddati euh, tronc bi nga xam ne moom moo kenal université bi mooy administration bi mooy mooy ant fa ngay fa fa ngay boo fa jógee ko nag nga soog am juróomi kano yi nga xam par exemple ñoom ñoo séq ngànk complexe bi léegi nag ci biir loolu am na nag pàcc bu ci nekk am nga spécificité euh, booy seet administration bi en door du rectorat nga xam ne loolu xamal nañ ko ak université am na euh, euh, li ñuy wax fondation bi annexe la woon mais léegi moom mooy fondation bi nga xam ne fondation Cheikh Ahmadou Bamba nga xam ne xam naa ne moom mooy ngànk moom mooy gérer complexe bi ci loolu mu am leneen beneen concept bu bees boo xam ne aussi ñëw na greffé wu ci ci biir complexe mooy kër xasida yi la mujj mooy projet bii université bii bi ñu koy koy tabaxee dafa nekk projet boo xam ne écologique la maanaam dañuy bàyyi xel euh, euh, garab yi ak yu mel noonu ngir euh, dafa am solo ci dëkku mel na Touba moo tax fii espace vert yi dañ ko xalaat am mbooloo mu ko jël di bi Serigne tubaa war koo liggéey mu war a euh, xëy na toll ci deux cent millions yoo xam ne ay garab rek lay doon espace vert euh, kon euh, loolu lu am solo la ci fii eaux usées yi maanaam ndox mi ndox mi jóge ci wanag yi dañ koy defaraat ci station ba mu ba mu baax ñu koy arrosé garab yi dafa traitement station de traitement boo xam ne boo am solo la ci fii boo xam ne dañ ko fay bëgg a def euh, li ñuy wax énergie renouvelable yi loolu itam daf fi dañ ko bàyyi xel ci liggéey bi mooy lépp luy solaire ak yu mel noonu ndax fii day euh, euh, dañ ko war a bàyyi xel ci liggéey bi ndax mooy tax ëllëg wàllu énergie bi luñ ci mën a sakkanal ñu mën koo def. mu doon liggéey boo xam ne nag bi ko sëriñ bi tàmbalee di ñu ko wax ñëpp dañoo jóg ànd ko ak moom ni ko boroom xam-xam yi defe nga xam ne fii ne bi ñu leen mujjee recensé ëpp nañ 700 personnes yoo xam ne ñëpp nag ay borom yi xam-xam lañ ay sommité lañ ay nit ñoo xam ne dañ leen a tànn ndax li bëggoon a bokk ay nangami million lay doon waaye ñi ngi ci tànn rek ñu nekk nag ci biir réew mi waaye nekk ci biir àdduna bi kenn ku ci nekk itam moo waxal boppam wax pas-pasam ak yéenam ci. dugal loxoom ci liggéeyub Cheikhul Khadim bi radiyallahu anhu ñooñu ci wàll yu wute nag am na ci ñoo xam ne sax biñ ma waxee ñoom li ñu jàngale fañ nekk ci réew yi tugal yu mag yi dama leen lii kañ la ko senegal di soxla te dañoo war a àgg ci soxla ko ndax am na doomam yu ko jàng ba di ko jàngale euh, noonu nga xam ne nag boroom xam-xam yi noonu lañ defoon waajtaay wi boroom xam-xam ñëw waaj ngir ànd ak sëriñ bi àggale doxal liggéey bi ni la nag mboolem jullit yi mboolem taalibe murid yi mboolem senegal yi ànd ak bi ci yéene ji ak xalaat bi ay murid yi kenn ku ci nekk di def la nga mën ci njabootu boppam gi mooy bokkam yi rakkam yi ak ñi nga xam ne Cheikhul Khadim radiyallahu anhu moo leen moo leen moo leen defar kenn ku ci nekk ànd ak sa njaboot di indi sa addiya ci sëriñ bi loolu nag mooy liggéey yi nga xam ne moom seriñ bi moo koy defal boppam ci wàllu koppar moom la dénk sëñ Abdoul Ahad Ka def naa ne bu ngeen fa demee ba gis liggéey ba alhamdulilahi rabbil alamin lu ñu jox sëriñ bi rek foofu la ko jëmee lu ñu ko jox rek foofu la ko jëmee euh, ñeneen ñi itam nag am ñoo xam dañoo ñëw sàkku ci sëriñ bi mu tobbi leen ay sas jàpp naa ne sëñ Amdi Khady Fall la ñuy jiital moom sëriñ bee ko woon sant ko miir ba defe naa bu ngeen gisee miir ba tuwaarkal ba fi jiite woon Cheikh Abdoul Ahad moo ko defal waaye bi mu koy yeesalaat ba di ko toj ñëpp dañ ne woon moom bii moom moom doy na waar waaye lee mu fa def gis ngeen ko te bu njëkk ba alhaaji Ndour Kébé la ko Cheikh Abdoulaye Ahad sancoon santoon mu defaroon ko ak jàkka jooju nekk ci am na ku ñuy wax sëñ Cheikhum sëñ Abdoul Hakim di doom ci sëriñ bi rakki sëriñ bi sëñ Abdoul Hakim di waajuram moom itam dafa laajoon sëriñ bi aw sasu boppam mooy fajukaay ba ba ngeen gis poste de santé ba ak daa ak jàkka ja gis ngeen na mu ko defee waaye am mbooloo mu nekk sowu moo xam ne ñoom dañoo ñëwoon fii si sëriñ bi waxtaan ak moom wax ko ne ko dañoo bëgg a feeñal seen yéene ci liggéey bi ñu leeral leen lépp ñoom ñu sasoo daaree alquran ji mais sëriñ bi bu soob yàlla ay caabi lañ ko jox defe naa gis ngeen moom it seen bâtiment ya fa mu toll fi mu nekk nii àggale rek jàpp naa ne moo ci bëgg a des ñoom itam muy liggéey bu ama ama am solo boobu rek juróom benn milliard lañ ko xayma woon waaye ñoom lañ cee def fi mu nekk sax nanguñ ko wax waaye nee nañ sëriñ bi daal incha allah balaa yàgg danañ la jox suñu caabi muy liggéey bu am solo mbooloom commercant yi ne ci dëkk bi nag di liggéey ñoom itam ne kat gannaaw nun noo am tawfeex yi dëkk ak sëriñ bi nag lu fi waaye di def dana jàpp ne noo ci war a jiitu donte sëriñ bi nag ñëpp bokk mbiram ki ne fii ak ka bitim réew ak moom doomu aadama yëpp ñoo ko bokk waaye ñoom ñi gën a jege fii nag ñoom itam ñu ñëw sasu fa ñaari an yoo xam ne bu ci nekk 500 place lay doon gis ngeen benn ba daanaka léegi tey bu noppi am na itam ku ñuy wax soxna soo Soda Xumma moom itam moo ko njabootam wax ne kat waañ ñu mi moom dama bëgg ci waañ yi juróom benni waañ lay doon mu ne dama ci bëgg jël wenn boo xam ne ci waaju maam jaara tullaahi mariam lay doon moom itam gis ngeen na nga xam ne tabax ba fa la fa la toll am na ñoo xam ne dañoo ñëw ñoom itam wax ne gone yi bu ñu jàng am nañ ay dëkkuwaay am nañ fu ñu jàng waaye soxla nañ ay mbaar yi ñu dalloo wala bu ñu bëggee kuréel wala bu kenn nit dee toog di waxtaan ak ñoom ci diine di waxtaan ak ñoom ci yarub murit di leen defar ngir ëllëg ñu mën a xam naka yan comportement lañ war a am naka lañ war a dugg dugg ci biir jamono naka lañ war a mën a ànd ak nit ñi te kenn du mën a yàq seen pas-pas kenn du mën a yàq seen seen valeur yooyu nga xam ne seen maam sax dañ ko amoon lislaam ñëw gën koo dëgëral ñu di leen xamal nag sëriñ bi ni mu doon jàngale ni mu doon yare ñu defal leen ay mbaar yoo xam day féex mën a toog dallu bu baax a a baax waaye loolu itam am na ñoo xam ne dañ koo dañ koo sasoo noonu daal dañ ko toppee muy liggéey boo xam ne kenn ku nekk am na yéene def ci loxoom wajal mamaati raatan limin nasab wa min jawan wa min haraamin wa wasab وعمل اجعل كله مقبولا ata akuna muqtadan maqbula li waral muy wax nag mbirum Mamadou Ibra Kane moo waral ma koy def liggéey bi mu liggéey di ko liggéey sëñ Touba jàppale Sëñ Muntaxa ci liggéeyam ana lu tax muy maam Mamadou Ibra Kane dafa maa niru ne day day doomi daara mbay ay waaye juróom yar ko yar bu baax ba tax mu yéene Sëñ Muntaxa ndam ci liggéeyam kenn nanguwul lu ko gàkkal fekk na nag ma doon ko seetlu moom Mamadou ci yar akuk dal ak segg waxam mu bëgg sama bopp te tuñu wunu par yaa dogal lii jaare ci man sëñ bi naa dafa woote nag lii ci xam-xam taalibe yi di am seen wërsëg ñenn ñi di ñaan moom ab ak siiwal la man moom la wàlle ci géew sëñ liggéeyu sëñ bi kon yi ñu teg ne téere bi xam ne ñoom la koy liggéeyal ci turu lislaam may ñaan itam ay moromam yu mu bokkal métier ñoom lu ñu roy ci moom ndax métier métier mii day siiwal te lu siiw lu baax moo ca gën lu baax nag li ci ëpp teggin ëpp te yar moo ciy gën te noonu laa gis muy doxe moo waral sax man nangul ko lu ma nangul kenn muy wax kàddu yi kon Mamadou bisimilah liggéey baa ngoog lislaam bépp nga ko defal rawatina murid yi rawatina Sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo sëmb sëmbam ngir liggéeyal ko Sëñ Tuubaa mu dajeg muy sëmb moo xam ne moo doon méccam Sëñ Tuubaa muy xam-xam dama ko waxee woon rek ne mbirum Sëñ Tuubaa liggéey Sëñ bi ñun ñëpp nañ yëkkati nañ ko nañ ko bokk fabandoo yëkkati ko mu jëm kaw rek dañ laa di suuf loolu ba ma koy wax maa ngi ma ko seqal ñëpp moo tax ma di ko wax te li mu yëg ci sama bopp parce bi mu yëg ci ci sama diggante sëriñ bi am aw mu sikki sàkk ci ne maa ngi ma ko bokkal noo bokk parce que boobu. kon ala kulli xaalin nooy war a bokk xalaat jooju nooy war a bokk yitte jooju ba loolu moom waxuñu ko loolu moom daara ji moom waxuñu ko waaw na ko borom na ko sëñ bëggee woon rek la cay suñu wàll suñu kem kàttan moom nañ ko ci def na am ni ni mu ko bëggee waaw tabax gi li waral li waral tabax gi alhamdulilah rabbil alamin muy njàng mi jàng alxuraan jàng xam-xam xam-xam ba ca jiitu mooy xam-xamu alxuraan mooy xam-xam ilmu naafe mooy xam-xam bi gën a am njëriñ te mënut a mënut mu mu mu mëneesu koo ñàkk xam bi am njëriñ la boo xam ne mëneesu koo ñàkk kon loolu moo jiitu ci daara ji ak xam-xam yeneen yu am njëriñ te ayut yëpp. waaw ah, ah, mu ngoog mu ngoog mu ngoog wax jëpp mu ngoog kon. والجن والشيطان والبلد وعن فعل الخلق ورفع والجن liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu loolu lu ñuy yëkkati moom laal suuf ilaawu kalimatillahi al ulya loolu dong muy liggéey bi بدقاء ونور ورسل والملاحف ومسكن مسكن الخسران ومسكن مسكن الخبراء ورشدي والعفاف وأهل ولا إخلاص وصدق وورع ولا سنة ومنجا من بدا واجعل دابا مسكن التألم ومرجع فكرتي وأنت ومسكن إزاد وتهليم ومسكا تسيبه وأنتجمه وجل مسكا لخروجه من سلم لنور وكفه حمل كل من سلم وجل دابا مسكا ابتباعه لسنة لا مسكن ابتلاء واجعل يا ربي آب مسكن في أرضنا لك وللمعيشين وجعل عن الفجر والبعث في دون